bismillahi rahmaani rahim uh, muxtasar xalil wa xukmuhu ka muxayirihi doon nañ wax ndox yi baax ak ndox mu soppiku uh, nee na nag tey wa xukmuhu mooy attem ndox wa xukmuhu ka muxayirihi wa yadurru bayinu taxayurin bi xabli saaniya كغدير بروث شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وفي التطحير بماء جعل في الفم قولان wa xukmuhu ka muxayirihi mu ne atem ndox ci laabam ak ñàkk laabam ndox mu soppiku lan mooy àtteem ndox moomee ka mu koy yirihi mooy àtteem la ko soppi rek ñoo bokk àtte ndox bu soppi ko nga gis ne li ko soppi lu laab la ndox ma laab na bu dee li ko soppi sobe la xamal ne ndox moomu baaxut wa hukmuhu àtteem ndox mu soppiku ka mu koy yirihi moog àtteem la ko soppi rek ñoo wa yadurru bayinu taxayurin bi xabli saaniya mi ngi waaj a yoo xamante ni baaxul bu amee ci ndox dañ ko war a wàcc wa yadurru dana lor ndox mi dana ko yàq yaslubuhu taxuriya ba nga xam ne kenn dootu ko mën a te laab la kenn mënu ci cee laab bayinu taxayur mooy ndox mu soppiku soppiku gu leer bayinu taxayur bu la neexee nga ne mooy taxayur faaxish soppiku gu leer ci lii ñuy waaj wax nag soppi ko mooy yi nga xam ne dëkkut ci ndox mi waaye dañ koy soxla nag ci ndox mi dëkku ci nag ndax bu ci dëkkoon wax nañ ko waaye xëy am masala yoo xam ne dëkkul ci ndox mi waaye dañ koo miin ak ndox wala boog ndox mi da koy soxla léeg-léegi andil na ci misaal mooy xabli saaniye mooy buumub dalu buumub goj bi nga xam ne nit ki da ciy baaxoo génne ca teen ba buum googu mooy jumtukaay gi nga xam ne dañ ciy génne ndox mi ku ne xam ne ne bokkul ci xeeti suuf si ak yu mel noonu waaye eh, jumtukaay la boo xamante ni dañ koy jëf dañ koy dañ koy jëfandikoo daal ngir di so di génn ndox mi mooy masaa'il yi muy waaj a andi dëkkul ci ndox mi cosaanawul ci ndox mi waaye dafa ne xaree tàggal ak ndox mi ngir soxla gi ñu ko ci soxla lool nag nee na moom Cheikh Khalil bu soppikoo soppiku gu foor lool da ko yàq dañ ci dégg ne kon bu soppiku woon soppiku gu woyof loolu dañ ko jégale waaye duru bayyinu taxayurin bi xabli saaniya mooy ndox boo xam li ko soppiku mooy buumu goj bi nga xamante ni day dugg ko génn da nga ci déggee kon ndab liñ ko baaxoo tànqe ak yu mel noonu bu soppi ko nga xamante ni yëpp ndox mee tax nga soxla ko ci ndox mi waaye ndox mee tax nga yittewoo ko goj beeg yu mel noonu lu mel ne ba tey giir ba mooy euh, giir ba biñ koy tànqe di baax mooy xeeti sëbëj gi ñu koy def léegi raxas gi raxas jar bi ak gi teen bi bu fekkoon ne dafa am luñ ko defaree ci suuf luñ ko tayee ak yu mel noonu yooyu yëpp rek moog li ñu bokk àtte yëpp nee na ala kulli xaal du lor euh, dana lor ndox mi bu fekkee dafa soppiku soppiku gu métti waaye lii lépp rek comme li ñu waxoon mooy euh, yii nga xam ne dëkkul ci ndox mi waaye nag ndox mee ko soxla euh, bu waaye fee jégale nañ ko bu fooree kenn du ko jégale defe naa junjoon nañ ko wal xulfu fi muslixihi kat dabri asaxuha ma xafa anhu mulxi loolu mooy tafsiri mooy bu waaye nañ ko bu fooree nag kenn du ko jégale donte masala mi nag masalatu xilaaf la waaye wa yadurru bayyinu taxayurin bi xabli saaniya ka xadiirin bi rawthi si ni ki noonu ba tey xadiir xadiir mooy xeeti déeg yi rek bu soppi ko ci neefere yi marché yi jur gi ak saw mi xam naa li waa àll ba ñoo tax ñuy wax ñu dëkk ci àll bi loolu ku dëkk ci taax yi mën nga ko bañ a xam waaye ñu dëkk ci àll bi nga xam ne léeg-léeg ci déeg yooyu la ñuy jëfandikoo ci la ñuy jàpp ci la ñuy sangu déeg yi léeg-léeg jur ga da cay bari lool di ca def yu mel noonu seen neefare yeeg seen saw mi nee na nag bu mel noonu bu soppi ko lool ci neefare yi jur ga fa ga fa nekk ak seen saw ma bu soppi ko waxuñ nag donte sax soppi gi foorut xam nga nee na la fee bay yu nu taxa yorin waaye nag fii nee na kaxadir kon da ko cee ataf andi kaaf gi waaye nag kaaf gi li tax mooy atfu na ko ci waaye nag bokkuñ bay benn ndax fii bu dee xadir ak yu mel noonu kenn sartu ci muy nekk taxayur bayin am déet mooy bu ko soppee rek nu mën a doon na ba tey nee loolu da koy lor ka xadirin bi rawsi machiyatin waaye ba tey li ñu waxoon fee rek lañ fay wax rek ci sartub rek eh, bu woyee fee bu sartub rek ñee ñàkk pexe ba nga xamante ne war nañu amuñ leen lu ñuy amul amuñ beneen déeg wala yu mel noonu xëy déggee dafaa néew ba noppi jur ko bari su boobaa dañ leen ko jégal ni ki doon aw bi iri ni ki doon ab teen bu fekkee ndox mi dafa soppi ko bi waraq shajarin ngir xobi garab ga koy tiim wala tib na ak yu mel tib na xeeti kii kew yeeg kii génn ci biir teen bi ba tey bu fekkee loolu da ko soppi nee na da koy lor moo xam soppi na ko bu baax waaye wala soppi ko bu baax waaye nag wala azhar li nga xam ne mooy azhar ci ibnu rushdin ndax wax na ca commencement bi ne azhar bu ko waxee ibnu rushdin la jublu fii bi iril baadiyati bu dee teen bi teenu bu waa baadiya bi la nga xam ndox mi dafa soppi ko bihima ci ñaar yooyu ñuy wax mooy waraqu shajar wala tibn bu dee moo ko soppi te mu la ne teen bi muur ko jafe na wala yu mel noonu li gën a wér mooy dagan na ndox moom kon baax na waaye mooy li ñu waxoon léegi rek mooy bu fekkee ngànt am na rek dagan na wala azharu ci ibnu rushdin fii biiril baadiyati boo xam ne ndox mi dafa soppi ko bihima ci ñaar yooyu muy waraqu shajar wala tibn aljawaas kon dagan na xam ne mën nga cee laablu moo ni ko doon ba te mooy xeeti teen yi nga xam ne rek da koy da koy dër ci suuf laal ci dara ci kadoon ngir bañ mu senn wala xeeti matière boo ci def rek nga xam ne amoo pexe su boobaa kon nee na loolu dagan na ndax dañ koy delloo rek ci liñ waxoon ne day daal di mel ne euh, xaraar euh, mooy ca saxukaay ba ma day mel ne lu soppi ko rek saxukaay ba moo tax kon dañ koy jégal wa fi jaalil muxaaliti l muwaafiqi kal muxaalifi nadar masala mi mat naa déglu bu baax ci sàkkati xam-xam yi ndax xaw naa ci tuuti mooy wa fi ndax nag danañ def ndox moo xam ne al mu dafa jaxasoo ak ndox mooy buñ gisoon loo xam ne maa la du woon ndox dëgg-dëgg ndox moo xam ne cosaanam laneen la woon du woon ndox laneen la woon ndoxum laj ko lañ la woon masalan waaye nag jaxasoogum jaxasoog ndox ba tax melokaanam yooyee mu yoroon moom maa eex moom yëpp dañ na ba ñu roog ndox mii ndax danañ def maa al muxaalit nga xam ne dafa jaxasoog ndox ndax dañ koy jàppee al muwa al muwaafiq ba niroog ndox mi lépp nga xam ne ñoo niroo lépp léegi luñ koy jàppee ndax moog ndox mii mu niroo léegi ba nga xam ne bay benn ñu atte ba benn lay doon wala ndax dañ koy jàppee comme almu muxaalif ne déedéet kenn du ko ko jàppee ndax li cosaanam nekkuta ndox maa ul ward la woon wala maa nangam la woon wala sax bu la neexee nga ne léeg-léegi xëy na du woon lu laabal yu mel noonu. ndox mi ngi ci def ak yooyu rek moo ko soppi ba tax mu mujj mel nii loolu la ne nee na am na ci nag la waroon a wax ndax day mel ne masala moo xam ne mu taqaddim yi ñu waxuñ ci woon benn nas mooy kon buñ amoon ndox moo xam ne maa eex la maa ul ward la masalan wala yu mel noonu ndox mi ci cosaan melokaanam dafa safaawoon dafa safaanoo ak laab melokaanam woowee nga ndox la ko soppi woon nag jekki-jekki dañ ba nga xamante ni boo ko gisee rek dootu ko xàmmee ndox moomu ndax dañuy xool comme cosaanam ne kon baaxut ndax dañ naan lii ndox mu soppi ko la baaxut ndoxum nangam la woon wala dañu xool ni mel léegi mu waafeq nga xam ne moom ndox mu bees mii ñoo niroo bay benn nee loolu nazar am na ci loolu la bëgg wax ne wa fii jaalil mu xaalitil mu waafeqi kal mu xaalifi nazar ndax ndox moo xam ne cosaanam mu xaalit la woon mooy ndox moo xamante ni ndox ak laneen la woon ndoxum tuur ndox ndoxum war ndoxum nangam ndoxum nangam waaye nag melokaanam yooyu yëpp jekki-jekki dañ ngelaw li yóbbu ko wala leneen yóbbu ko wala yu mel noonu ndax dañ koy jàppee comme cosaanam wala ndax dañ koy jàppee mii mu nirool léegi nee na loolu nadar am na ci ndax dañu xool ndax laab na wala sobe na wala ñu xool bu fekkee dañ cee dolli ndox moo tax mu soppi ku ñu xool bu dee ndox mi ngi ci sotti dafa bari lool loolu moom dañaan laab na lool dara ndax jàll na comme li jàll rek bu dee ndox mi ko mi ci dolli nag ba tax mu dindi melukaanam woowee dafa néew ñu ne loolu xilaaf da ci am loolooy wa fi jaalil muxaaliti l muwaafiqi kal muxaalifi nazar ala kulli xaal masala bi nazar am na ci wala boog bu li ne taraddudun am na ci waaye nag ndox mi ñu la demee rek bu fekkee li ko soppi ndox nga ci soppi ndox nga ci dolli nag dañuy séddale ndox mi ndax bari naam bëriwut bu baree loolu baax na bu bariwut xilaaf am na ci bi weesu bu fekkee nag dafa soppikul boppam wala yu mel noonu xëy na mënees na ne kon dafa deñ ci la xilaaf bii di amee ndax dañu xool cosaan li wala ndax dañu xool ni mel wa fi tatxiir bi maa in joxle fi lfami xawlaani ndox bu fekkee da nga ko def sa gimiñ ndax mën nga cee laablu wala déet yéen nit ñi nekk ci àll bi wala nga nekk fu bëriwul ndox xëy na du ñàkk ñu koy